di bëgg rek ah. euh, di kontaan. ñu ñëw tuuti rek ci rôle bi nga xam ne joué nga ko biir valeur mu nekk rôle boo xam ne c'est vraiment déplorable rôle boo xam ne maanaam toroxal sa njaboot ndax euh, jabar ah euh, métital sa njaboot génne sa njaboot ndax sa soxna est-ce que rôle boobu yomb na. non père Amit moom rôle am du ma sa yomb. Uh-huh. parce que toroxal sa njaboot. Uh-huh. lu metti la. Uh-huh. waaye itam dem ba toll ci da nekk véritable soulard. Eh, di naan. di daanu ci biir ci mbedd yi loolu moom xam nga message la bu ñuy wane wane ni affaire bi du loolu ko waa leneen la njaboot dañ koy sàmm aar ko yiir ko yor ko yar ko waaw loolu mooy li ñu li ñu li ñuy séntu maanaam ci rôle bi mhm. dañuy wone lu bon li pour que nit ñi bañ ko def def lu baax li d'accord voilà mu nekk loo xam ne jamono ji bëri nañu koy dund ci société bi parce que tamit quoi qu'on puisse dire góoru tey yi dañuy takk jabar li ci ëpp du mën a ñëpp seeni jabar génn àdduna ñu takkaat jabar jël jabar yooyu teg ko seen kaw doom ñooñu jabar jooju ñëw di méttital seeni doom ñu ànd ceeg ñoom ba toroxal seen jabar est-ce que jaadu na non loolu du mës a jaadu ci àdduna euh, parce que société moom euh, dund gi dafa war a doon euh, unité dafa war a doon solidarité mais dafa yërmande daal. Mhm. waaw yërmande nit yërmande rek la war a dund. Mhm. parce que yàlla mhm. dafa fonk doomu aadama. ba nga xam ne dafa bëgg euh, toujours euh, ñu koy def lu baax. di ko xiir ci lu baax. di ko digal lu baax. loolu moo waral eh ma def rôle boobu pour wane ne affaire bi du lii leneen la. ñu gis ne tamit loolu mooy wan ne. jouer tous les rôles bi ñu ma mën a jox su fekkee ne rôle bu sell la. bon jéem ko valoriser pour role bi macha allah am valeur comme ni ñu koy waxee parce que vertu yi ñu ci laaj foog ñu incarner ko jëm ko jouer nit ñu ko laajee daal. waaw te ñu ngi ciy góorgóorlu daal. yaa ngi ciy góorgóorlu mais tamit nga dund ci lu metti ndax tamit tabax sa kër ba mu baax li nga xam ne nag moo nga nekk pauvre boroom alal jóge fële kenn xamul dafa falsifié kii te kenn xamul fu mu jaar ñëw bëgg foqati li nga xam ne moom nga am as waaw loolu lu ci métti mooy dalul lu bees dafa bare ci dëkk bi te foog ñu jóg ci loolu waaw man sama message loolu lay foofu lay yem ci affaire bi du ma ci lu bare jaay bi moom dafa war a jeex ñi ci war a jóg jóg ci quoi mm-hmm. waaw. nga taxaw ak sa nouveau goro nag waaye métti woon na lool yoon bi métti woon na ndax moom it yaayam nekkoon nit ko am daraja ci réew mi am alal yow nga ñàkk donc mu nekk ñaari yi famille yoo xam ne compatible lul moom mu bëgg sa doom yaayam bañ mu métti woon lool. waaw ñu war leen jàppale en tant que parent xam ne àdduna tam li ci kanam kenn mënul xam lu mu lu muy jeexee te ñaari xool yu daje bëggante ne wara jàppale ñu gën a mën a dundal li mbëggeel gi ne seen biir daal tu uh-huh. vois mais tey message ngay jox ci ñi nga xam ne ñu ngi xeebaate jamono ji waaw xeebaate moom gëmadi yàlla rek dëgg-dëgg parce que boo gëmee ne loo am yàllaa la ko jox du sa ngóora mais di nga war a mën a dal daal waaw man loolu laa yaakaar. si beaucoup Baye Demba. je vous en prie merci. Goro Baye Demba nuyu naa la. maa ngi lay fay. <laughs> nga interprété aussi rôle boo xam ne c'est pas du tout évident am alal gu dul jeex xool koo xam ne moo gën a ñàkk ci koñ bi nga nopp ko. waaw ah, mais loolu la ñuy wane ne mbëggeel kenn du tànn ne man diw laay bëgg tel jour wala tel mois wala telle année loo xam ne day ñëw naturellement la du doo ci mën dara te du la tàggu donc c'est c'est juste ça en fait. mais noo dundee par exemple séquence boobu après nan nga ko dundee li nga ñëwee ne sa yaay kii nga bëgg moom nga bëgg a takk sa yaay ne la xeeb ko daal maanaam xeeb xale bu jigéen ne la kii walaakaana la du sa nawle noo ko dundee. bon en vrai na ma. parce que moi je me dis nit ak nu mu mënti mel ak nu mu mënti ñëwee war a ko tuutal loo xam ne moom la am parce que man pour man mbëggeel dépassé na yenn yi nii même bu dul mbëggeel sax dans la vraie vie que ce soit une autre chose beneen domaine nit waroo xeeb nit ci dara waroo xeb nit ci dara parce que bu fekkee lu ñuy xool maanaam ci nit lépp mu ngi ci moom muy valeur bi muy yar bi muy diine bi et cetera et donc séquence la boo xam ne voilà daw na yaram loolu tamit daw na yaram mais te dañ ko gis suñu société bi ba léegi et c'est vraiment dommage c'est domage hein. d'accord c'est nga am waajur bu jigéen bu mel noonu parce que yemu ci kese gis nga sa cousine bi waajuram bu góor génnee àdduna muy sëy na bu moom it mu yor ko mais daf ko doon toroxal ba mujj gi euh, mujj gi mu mel ni soxorte waaw loolu mooy wane ni nit ñi dañoo bëri te wute rek xam nga tey jii nii xëy na moom mooy sama waajur man war ma ko ñàkk teggin wala wala moo ko ñàkk respect mais teewul li mu bëgg man ma koy def du ma ko def bu fekkee moom li mu ñuy def du du dëgg du yoon daal ci gàttal loolu la rek daal. ban message ngay joxe ci nit ñu mel noonu. bon mooy li sama papa wax léegi mooy genre nit ñi nga xam ne loolu ñàkk gëm di yàlla la rek mais moo je me dis tey jii nii bu fekkee ku euh, bu fekkee yow tey jii nii gëm nga yàlla gëm ki nga doon gëm ni yàlla moo la sàkk tôt ou tard da fiy jóge am na yu bëri dañ ci war a bàyyi xel donc voilà loolu lay lancé ñoom xam nga. merci beaucoup ñu ngi xaar mariage bi. d'accord amul benn problème merci beaucoup. xaar nga. <laughs> man mii sax man jigéen. Ah. <laughs> li ma nekk di wane ni mooy li am ci dëkk bi rek. Mhm. ah effectivement on voit plusieurs euh, plusieurs mecs qui sont comme ça du coup euh, mhm. li am ci dëkk bi rek laay wane waat ah. effectivement ah, ci li ma ci gën a métti gën ma jaaxal mooy da di yor jabar yu tooy jabar yu baax ngeen ba leen ci biir kër yi di doxaan ci biti. <laughs> ça je vais dire que ni maanaam xam rek. dafa am benn côté boo xam ne yéen a góor xam ne. mu mënuñu doylu loolooy seen problème foo leen fekk dañuy bëgg bu ñu amee dara lu baax dañuy naan non non foog ma dolli alors que dolli boobu noonu moo koy yàqal na mais fi nga mujjee quand même kenn ah effectivement moom fi ma fi ma mujj moom c'est autre chose c'est autre moom c'est vraiment difficile mais bon je pense que Jules va se relever après quoi. noo dundee rôle bi ak sa intégration bon. au commencement, c'était un peu, vu que c'est la première euh, collaboration, mhm. c'était un peu difficile, mais après, euh, je me suis familiarisé avec tout le monde, c'était beaucoup plus nickel. Mhm. Mais je parlais tout le temps avec les gens, j'essayais je, d'avoir beaucoup plus d'expérience. C'est ta première fois Oui, effectivement. Adopté ou non, non Moi, c'est juste, j'essaie de, voilà, quoi, de prendre d'ici gauche-droite. Mhm. voilà ak sa famille ak sa sœur. <laughs> Oh, ñooñu ñu doy waar. <laughs> ñu doy waar comme yow. effectivement <laughs> waaw. officiellement quoi. d'accord ma première année ci valeur ci ñaari série yëpp donc ah maa ngi jëm de. maa ngi jëm merci beaucoup di xaar incha allah incha allah merci beaucoup à vous. Euh, expérience la bon c'était pas ma première expérience mais bi ñu ma ci woowee c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé ndax casting bi mu fa fekk euh, ñoo xamante ne am na ñenn jot naa liggéey ak ñoom si yeneen production mais bii c'était vraiment vraiment euh, un challenge pour moi parce que c'était une première surtout pour la productrice muy Clara mu woo ma ci ce qui m'a fait énormément plaisir ma ñëw jàppale ko et moi aussi j'apprends j'apprends j'apprends toujours dans ce métier là et ak ñi ma nekkal ci kii bi euh, production bi franchement c'est c'est une très bonne expérience pour moi. est-ce que jouer rôle avocat yomb na. Euh, yomb na yombul bon on apprend c'est des choses qu'on voit tous les jours qu'on vit par rapport à des connaissances qu'on a comme avocat par rapport à d'autres productions télé qu'on a vues en tant a suivis donc daal dañuy jàng daal dañuy ah, ah. alors rôle yi nga joué yëpp ci série yëpp ban moo la ci gën a neex. Euh, ban moo ci gën a neex. bon bi mooy sama deuxième rôle avocat je dirais le rôle d' pour le moment. mais mais am na beneen boo xamante ne commandant dans Impact aussi c' est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. mais bon nekkoon naa tamit benn waay bu xaw a kii si idole. ou xaw a doy waar ah. idole donc tamit waaw rôle yëpp daal nañu joué. soxna si. fàttaliwaat ma tur bi. Issa sax laay seen benn tey nga daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di activité deuxième saison wu Raffinage noo ko defee. waaw am contentement bu baax parce que tout d'abord Clara sœur la si ñun et ñu bokk liggéey bi mu nekk jigéen bu am jom du xewle dañuy kontaan pour ñëw si. nga bokk ci li nga xam ne taaral nañu li nga xam ne moo di cinéma wu sénégalaise nga bokk ci li nga xam ne moo di série waaw dëgg la ñun dañu nekk ay xale euh, nekk si métier boo xam ne dañu nekk di di ko construire petit à petit euh, bon ba ñu nekk ay ndaw am si benn benn benn pàcc boo xam ne war nañ ko si def di béy suñu waar di ñaan yàlla yàlla dooleel ñu parce que yàlla moo mën a dooleel te cinéma laaj na dooleel euh, tout d'abord looloo tax ñu kontaan d'abord si Euh, Clara moom mi nga xam ne moom moo initié projet bi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy valeur ma ci participé. merci beaucoup vraiment. kontaan nañ trop bëgg nañ. koo fi gis rek am na faru rab wala gerlu rab moo xam bu baax bi la wala bu bon bi la déjà bala may def dara damay nuyu Sénégal di nuyu àdduna ah di nuyu képp kuy seetaan Seneweb di la nuyu yow sama sœur Sénégal. <laughs> alors sa teewaay fii nan gisee initiative ci rek sama jumelle bi yàgg naa nekk jàmbar donc li ko doon wax rek am nit moom boo nekkee ci yoon boo xam ne da koy jubal di ko sellal doon jigéen teewul nga doon jàmbar lu mel ni jomm ko ñu ngi koy xaar ci yeneen vraiment macha allah. carrière bi génnee nga clip récemment génne nga clip clip bi euh, ñëpp apprécier ko et tout lan la ñu mën a xaaraat ci Paama déjà décembre bi. waaw ñu ngi ci liggéey bi rek ñu ngi ci kaw liggéey bi ànd ak staff bi vraiment boobu ba tey ñu ngi tëju di liggéey peut-être fin décembre bi dinañ dinañ joxaat gars yi dara au début janvier incha allah xam buñ jotee ndigal rek. mais li ñu mën a wax mooy ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci li newoon juguñu ci. ñu naan Pama ñemewul yenn sonorité yi yu bees yi afro yeeg yooyu gisaguñ ko. ay la. afro yi bees yi nii yi Niger yi noonu day lool lool lool lool lool est-ce ko mën nga ko yow. Ah boo boo déggee Pama rek boo déggee Pama timbre vocal boo ko déggee di nga xam ne bon euh, mën na loolu. mën na lool et ñu ngi ci incha allah am na lépp loo gis dafa dafa dafa am temps loo gis dafa am temps mën na am sax def nañ ko bu yàgg mais loo gis dafa am yoonam dafa am temps bu jotee rek nañ nañ ko gis incha allah. ñu bëri apprécier sa complicité ak Sabel sa complicité ak Momo Jean euh, ñett trio la trio la def naa ah trio bi ñëpp apprécier ko déjà dan ngay wax nit ñu leen di suivre di leen aimer di leen liker ñu naan su ma bëggoon melal sama frère nii. waaw mais di leen di leen wax ni rek euh, mbokk lu lu ñu bokk dañ koy bokkoo mbokk dafa neex ñoom maa leen di nuyoo passage parce que ñooy samay mag lépp si ñoom la rek donc vraiment euh, bay ñaan mu sax yàlla mu ñu ci seytaane ah, loolu yàlla na sax ndax dañuy naan seytaane dafa sew mais do paa yaree nañu noo xam ne vraiment euh, mag day jiitu rakk topp loolu la ñu xam et loolu la ñuy wéyal loolu la ñuy fësal ñu koy conseillé ñëpp aussi. merci. merci sama sœur sama sœur bu jongo ma